yéen a seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy vidéo saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul wa nahnu ala ma qaala rabbuna wa xaaliquna wa raziquna wa mawlana min ash-shahidin allahumma rabbana taqabbal minna xatma al-Qur'an wa tajaawaz anna ma kaana fi tilaawatihi min alsahwi wannisyan aw taxriifi kalimatin an mawdiciha aw taxyiri xarfin aw taqdimin aw taxirin aw ziyaadin aw nuqsaan aw tawilin ala geyri ma anzaltahu aw raybin aw shakkin aw taajilin cinda tilaawatihi aw kasalin aw suracatin aw zayxi lisaan aw waquufin bi geyri waqfin aw idgaamin bi geyri mudgam aw idhaarin bi geyri bayaan aw maddin aw tashdidin aw hamzatin aw jazmin aw i'rabin bi gayri makaan faktubhu minna ala altamaami walkamaali walmuhadabi min kulli alhaan faghfir lana ya rabbana ya sayidana la tu'akhidna ya mawlana arzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan haqqahu ma'a al-a'daa'i walqalbi wallisaan wa hab lana bihi alkhayra wassaadata walbishaarata walamaan wala taxtim lana bilsharri walshaqaawati waddalaalati waltugyaan wa nabbihna qabla almanaya an nawmi alxaflati walkasalaan wa amminna min azaabi alxabri wa min su'aali munkarin wa nakiirin wa min akli diidaan wa dayyit wujuuhana yawma albacthi wa acti riqaabana min anniiraan wa yammin kitaabana wa yassir xisaabana wa thaqil miizaanana bilxasanaat wa thabbit aqdaamana ala siraati wa askinna fi wasati aljinaan warzuqna jiwaara sayidina muhammadin alayhi salaatu wa salaam wa akrimna bi liqaika ya dayyaan istajib duaana bi xaqi tawrati wal injili walzabuuri walfurqaan actina jamica ma saalnaaka bihi fi lsirri waliclaan wa zidna min fadlika alwaasici bi juudika wa karamika ya raximu ya raxmaan allahuma salli ala sayidina muhammadin saaxibi alshariati walburhaan bi raxmatika ya arxama arraximin allahuma anfacna warfacna bilqur'aani alcaziim wa barik lana bil ayaati wa dikri alxakim wa taqabal minna innaka anta alsamiu alalim wa tub alayna innaka anta altawaabu alrahim allahuma zayyina bi zinati alquran wa akrimna bi karamati alquran wa albisna bi xilati alquran wa caafina min kulli balaa'i dunya wa cadaabi alaaxirati bi xurmati alquran wa adxilna aljannata maca alquran warxam jamica ummati sayidina muhammadin bi xaqi alquran allahuma ajcal alqur'ana lana fi dunya qarina wa fi lqabri munisa wa fi lqiyamati shafian wa ala alsirati nuura wa ila aljannati rafiqan wa baynana wa bayna naari sitan wa xijaaba wa ila alxayraati kulliha dalilan wa imaman bifadlika wa juudika wa karamika ya akrama alakramin allahuma ahdina bihidayati alqur'an wa caafina bicinayati alqur'an wa najjina min alniiraani bikaramati alqur'an wa adxilna aljannata bishafaati alqur'an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 allahumma arzuqna bil alifi ulfa wa bil baa'i barakatan wa bid daa'i tawba wa bi thaa'i thawaaban wa bil jiimi jamaala wa bil xaa'i xikmatan wa bil xaa'i xillaana wa bi daali dunuwan wa bi zaali zakaa wa bi raa'i rahmatan wa bi zaayi zulfa wa bi siini sanaan wa bi shiini shifaa wa bi saadi sidqan wa bi daali diyaa wa bi taa'i tahaaratan wa bi zaa'i zafara wa bil ayni ilman wa bil gayni ginaa wa bil faa'i falaaxan wa bil qaafi qurba wa bil kaafi kifaayatan wa bil laamil alifi lutfa lutfa wa bil miimi mawcidatan wa bin nuuni nuura wa bil waawi wuslatan wa bil haa'i hidaaya wa bil laamil alifi liqaa'an wa bil yaa'i yusra wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa aalihi taahiriin ajmaciin allahuma ballig sawaaba maa qara'na wa nuura maa tarawnaahu ila ruuxi sayyidina muhammadin alayhi salaam wa ila arwaaxi ashaabihi radiyallahu anhum ajmaciin wa ila arwaxi jami al anbiyai wal awliyai wal mursalin wa ila arwaxi abaina wa ummahatina wa ixwanina wa asdiqaina wa asatisatina wa masaixna xaasa wa ila arwaxi jami al muminina wal muminat wal muslimin wal muslimat al ahyai minhum wal amwaat ajmaina amma wa ila jami ashaabi al xayrati min al muminin wal muminat allahuma ballig sawaaba ma qarana wa nuura ma tawna ila ruuxi sayidina muhammadin alayhi salaam wa ila arwaxi ashaabihi radiyallahu anhum wa ila ruuxi sayxina wa wasilatina wa shafiina sayxina ahmad alxadimi radiallahu anhu wa ila ruuxi sibtihi wa xafidihi alfadil ibni alfadil alcheikhi mohamad almustafa fadil radiallahu anhu wa ila jami allahuma ansur man nasara din waxdul man xasala muslimin amin ya rabbal alamin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 ci bisub Cheikh Mouhamadou Moustapha Fallilou bi ñu nekkaat rek fenn ci kër njabootam ba tey waaye duñ fàtte ni ña nga doore woon ci kër gu mag dooree ci sëriñ ji mi nga xam ne moo ko fi toogal di ñaan suñu borom guddal fanam loolu te wéral ay cëram jaar it kër Cheikh Mouhamadou Mourtada mi nga xam ne it ci njabootu ak sëriñ la bokk waaye ñu ngi waat ak yéen tey fii ci kër Cheikh Mouhamadou Bassir moom Cheikh Modou Moustapha Fallilou te ku ñu xam te yàgg dégg suñu kàddu nga xam ne fii mooy suñu kër fii mooy suñu suñu cër fii mooy suñu wéeruwaay ci sëriñ bi di ñaan suñu borom guddal fanam lool te wéral cëram lool ba naa yi mu naa la liggéeyal maamam mu defe ko kem kàttanam di ñaanal njabootam gi nga xam ne ñoo fi toog Cheikh Abdoul Karim Cheikh Modou Fadal Cheikh Moustapha ak njaboot geeg soxna waaloog ñi soxna yi mag yëpp ñoo ngi leen di siyaara bu baax baax ci bis bi bu ko defee rek ñu teew ki nga xam ne mooy Cheikh Abdoul Karim ci lenn rek li nga xamante ni mooy ay kàddu comme ni mu ko baaxee daan defee saa su ne ci màggul Cheikh a Moussa Fallilou nga xam ne daa ngeen ko gis ci conférence yi mu daan sànni ay kàddu di lancer ay messages yu am solo yoo xam ne àdduna daana ci jariñu saa su nekk muy ay kàddu yu jotal yoo xamante ni nii tey it mooy li nga xamante ni nii rek moom la ñuy taataanaat ci moom muy ay kàddu soññee ci diggante sëriñ akub taalibe waaye ci diggante jullit ak ay mbokki jullitam waaye ci diggante nit ak ay soppeem yi nga xamante ni ñëw nañ tey gane si ko seet si ko di saafonteeg moom di nemmeekonteeg moom ngir bisu maamam bi kon bu ko defee dañuy rek mu sànni li nga xamante ni mooy ay kàddoom incha allah bisimilah. aouzu billah bismillah inna waliyallah wa wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa malana muhammadil makin wa ala wa sahbihi zawi ridwaani wa tamkin ginnaaw bi ñu sante yàlla subhaanahu wa taala julli ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di yeesal suñu njébbal ak suñu jaayante ci xaadimi rasuli radiallahu anhu di ñaanal Cheikh Mahamadul Muntaqa suñ boroom yàggal ko fi lool lool lool te dëgëral ko ba li mu naa da liggéeyal Cheikhul Khadim lépp mu àggale ko nu kawe njortam te ànd koog mbokk yépp ak njaboot gi yëpp ak taalibe yëpp naka noonu itam lañ koy ñaanale sëriñ Abul Baraka moom Cheikh Mahamadul Fadil Fadilu di ko ñaanal nag suñu sëriñ di borom pàkk bi ñu nekk tey mu Cheikh Mouhamadul Bachir di sàkku ci mbooloom yëpp ñu ñaanalal ñu ko suñu borom yàgg bàyyi ko fi ci kanamu njaboot gi balim naa la liggéey ak liñ ko naa la liggéey lépp mat nu kawe njort barke Cheikh Mamadou Fadel suñu ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di siyaare kilifa yi nga xam ne ñoom laa jàkkaarlool di leen ndokkeel ci bés bu tedd bii. alxuraan day wax ne baada auzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim laqad kaana fi qasasihim ibratun li ulil albaab li ulil albaab dellu wax ne wa kullan naqussu alayka min anbaai rusuli maa nu thabbitu bihi fuaadak nee léeg-léeg ñu nettali la loo xam ne danga cey mën a jànge lu bare bare bari jële ci ay leçon di la ci ay foo mën a teg sa tànk ngir dox ci kaw àdduna ba amee ci àllaaxira loolu moo waral ñuy fàttaliku gaa yu baax yi du dara lu dajaloo ñaan fàttali seen i baax baax yañ doon def fàttali seen mawaqif seen taxawaay yu am solo yañ doon def ngir ajiyaal yi nga xam ne wala génération yi nga xam ne ñoo fi nekk nii ak yi ñëw demande man di ci jànge loolu rek lay jariñ jëmb ji nga xam ne moomam bis bi tey nag buñ ko fàttalikoo ko mot a fàttaliku la buñ ko tuddee ko mot tudd la ku ko xamut mooy ci ñi nga xam ne xamuñu ko mooy sëriñ Modou Bousso Dieng mooy sëriñ Modou moom soxna buso Dieng moom maay sunu mbi Dieng soxna Bousso Dieng mooy waajuram Cheikh Massine Oumy Dieng moo ko jur Cheikh Massine Oumy Dieng nag kenn ku nekk xam na ne cheikh yi gënoon a jege Sëriñ Tuubaa ci lu bokk bu fekk ko gànnaar loolu rek doy na martaba ñi kër alxuraan këru jàngale këru xam-xam di këru ragal yàlla. doomam ju ñuy wax soxna Boussa Dieng moom lañ jox Cheikh Mahamadul Fadil mu am ci sëñ Modou Boussa Dieng kon sëñ Modou Boussa Dieng gi nit ñi xam ci ko xamul loolu mooy sëñ Modou Boussa Dieng di Cheikh Moustapha Fadilou ñu tudde ko nag Cheikh Moustapha al Karim sëriñ Fallou duppee ko magam ju baax ja nga xam ne lépp loo gis ci sëriñ Modou moo ko saxal ci moom ndax ku xam Cheikh Moustapha da nga xam ne borom xel mu rafet la ku xam Cheikh Moustapha da nga xam ne ku noppi la ku xam Cheikh Moustapha da nga xam ne ku xam ku bari xam-xam la kon bu ko suñ fàllu duppee leeram jox ko ko mu yar ko loolu itam doy na ba ci sëñ Moodu moo ñeekuwaat nag nekkaat doomi Cheikh Mahamadul Fadil mi nga xam ne dafa jaay ak njuróolam sëñ Tuubaa jënde ko ab taalibe sëñ Fàllu dégg naa ko muy wax ne man bëgguma doon sama baay ndax amu baay ndax la ma ci amoon jaay naa ko ba jënde ko taalibe maa ko dégg mu wax ko kooku mooy sëriñ Modou Bousso jang di doom ci sëriñ Fadilu di ki ko njëkk wuutu ginnaaw bi mu wujjee boroom am na mag ju tudd sëñ Abdul Karim man mii di wax moom lañ ma tudde sëñ Modou ma ko tudde te loolu rek kon misaal na ab dayoom akub taxawaayam amut genn kër goo xam ne ci këram yi kenn dina fa gane àdduna te yónnee wu fa joxe tur wi noonee mu ko daan defee ca la ma tuddee magam ju baax di Cheikh Abdoul Karim di tawub Serigne Fadilou kon loolu ku bëgg lu baax la bu dee ñi nga xam ne xam nañ ko ba noppi itam nag nga xam ne xam nañ tur wi xam nañ askan wi xam nañ cosaan li xam nañ taxawaayam ba leen ko dee xamal da leen wax ne Cheikh Moustapha Fadilou ma mi nga xam ne da daan muritu baayam sëñ mu dafa def ñaari muritu ñaari tarbiya def. dañ koy jox Cheikh mu Cheikh mu tarbiyoo ko ba mu gërëm ko mu ñëwaat ci kër Serigne Fadilou waajuram takkaat laxasaay ga di liggéey guddeeg bëccëg ngir Serigne Fadilou bokk na ci ñi nga xam ne xam na leen fi mu toll nii day farat ndax taxawaay ya ngir ñu jànge ci buñ jul jàngee nag ñun amul njariñ bi nga xamee ne nekk na fi moo ko Cheikh Mamadou Fadil su mosaan bay ba noppi wax naa ko léegi jëmmi mbay mi jëmmi mbay mi ak fas yaag machine yaag dongee doon bay day ànd ak ñoom ñëpp ñëw jëbluwaat jox ko Cheikh Amadou Fadil nekk na fekk njabootu Serigne Touba yi itam ci kanamu Serigne Fadilu di leen defal ay teraanga yoo xam ne jënd na sax oto ñëw di ko ñaanlu si doomi Serigne Touba Cheikh Mamadou daa yàlla na ko yàlla dolli leer ñëw mu ne ko jox ko ko nga xam ne daa wàccay bagage noona dem jëliwaat addiya dolliwaat ko ca loolu nag ndaw lim ci jànge mooy topp sa waajur ak am pasteef ku ko ci def suñ borom dina la ubbil ijaaba defal la teraangay àdduna àllaxira yoo xam du jeex kon nag ndaw ñu war ci jàngiwaat ci loolu ñi ko xamut nañ xam ne kenn nu nit ak nit laa wax de kenn nit kuñ joxoñ jumaay sëñ Tuubaa ji ak ni mu toll ne la soorale yaa ko moom te ki ko wax waxantuwut ndax xalifa suñ tubaa Tuubaa moo la ko wax damay dindi waajur ku teg nee ki fi toogal sëñ tubaa tabax jumaa ja wala yot àggale ko ba mu yegg moo ne la tànnal ci soroor yi bu la ci neex ma féetal la ko jumaay Tuubaa yaakaar naa ñenn lañ ci dudd muy sëñ Tuubaa mi ko moom ak ñi ko tabax ak Cheikh Ibrahima Fall làmp suñ mu leen ñeenteel loolu it lu jar fàttali la nag kon na kenn ku nekk xam ne sooroor bi féetee nday joor kër Sëriñ Fallu suñ Moodu bu sojang moo ko moom mu lew ko doom te dafa légal ndax kak ko may mooy Sëriñ tubaa di Seex Mamadu Faadil te moo ko wax loolu lu jar fàttali la Sëriñ Fallu moom itam wooteel Sëriñ tubaa màggalu Tuubaa ba mu toll ni mu toll tey sëriñ mu toppaat ci ginnaam ginnaawam ne li mu wooteel sëriñ Tuubaa dinaa ko fay wooteel ko kasu rajab kasu rajab kasu mooy la leen nga dégg daf ko daan ka soo kas toog lépp sama classe gi waaye kasu rajab mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru rajab ñaar fukk la zaayu juróom la mooy ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru nga xam ne ci la Cheikh Mahamadul Fadil gane àdduna daana wax ne jibril na lay mën a cëpp mooy lay laylatul isra yi wal mi'raj cheikh mamadul fadil moomu gërëm na ko moo waral loolu mu ko jox ci jumaa ji waaye moo waral tam mu ubbil ko nag ba mu am ijaaba daana wax waa kër sëriñ Fallou yi ne leen da ngeen ragal rek waaye man li may wax lépp ci sëriñ Fallou laa ko teg taxaw lool nag njabootu sëriñ Fallou gi koo dem ci doomi sëriñ Fallou mu leeral la ko léegi ñoom it ñàkk ñaan lool koo wax mu ne la ñun xamuñu suñ bàyyi sëñ Modou ñu taxaw kon yàlla na yàlla fayal ñoom tamit kooku di Cheikh Moustapha Fadil waaye itam yemut ci loolu rek loolu képp ku bëggoon am réewam la moom Cheikh Moustapha Fadil gis nga hôpital yi ngay dégg benn bu nekk lum néew ne def na ci soixante millions ci jamono jooja def na Touba Qahira def na Sam Yebal def na Touba Bogo def na Touba Doli def na Ndindi muy juróom yoo xam ne benn benn wala bu ci néewu 60 millions du ca jamono yooya kon benn la ci doon wala ñaar loolu itam di ab taxawaay boo xam ne dañ ko war a roy ci ñi ma ko war a wax ci kilifa yi ci boppam war nañoo geesuwaat askan wi ci taxawaay bi nga xam ne moom la ñu war a taxawal seen maam Serigne Touba ñu ko lu ñu war a geesuwaat la. bu fekkoon fukk ak ñaar fukk ci ay kilifa geesuwaat nañu xippi xool la sëñ mu defoon ñoo dañ koy def dëkk bi dina fees dell ak ay fajukaay yoo xam ne askan askan a jariñu kon sëñ Moodu ko jara ku am njëriñ ci askan wi la ku jara delloo njukkal la ku dara ñaanal la ku jara fàttaliku la am na ndaw ñu bari ñoo xam ne xaj na bi muy noppalu ci 2000 fekkuñ kon loolu day jar di wax leen ko kon kooku mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Fadilou njàmbaar gi tam ñu war ko roy ci moom nag mooy lan courage am ambition li ma wax léegi gone léegi dañoo yàccaaral ci ay ci ci ambition yàccaaral ci jaamu yàlla yàccaaral ci ab liggéey waaye nit koo xam ne bi ngay sànci ay dëkk dafa def la fa war a nekk amoo 38 ans xaayra ak saab yebal bi mu koy sànci matul 38 ans ban gone ngay gis léegi nii ku amul 40 ans dëkk dafa def la mu fa war a def di fa yóbbu ay nit leen yoral dépasse ren ba déwén kan te moo ne da ku ko jéem man ko ndax yàlla mi joxe mi ngi fi jugul ba léegi sàmm yebal nee bi mu ko sancee daa woo ñu bari neen ku fi dëkk si ma yor la sa dépense ren ba déwén dafa jàkkaarloo moom ne ko suñ muut dama lay décorer mu ne ko mënuma décorer ndax man loo mën a defal kooku nga toogal defal na ma ko bu yàgg muy si muy sëriñ Fadilu mu ne ko waaw waaye wax ma li nga bëgg rek nee na mu ne ko ah boo bëggee décorer ni da nga ko laaj li bëgg Senghor ne ko lan la mu ne ko damaa ab dëkk jaamu yàlla yi nekk fa ma bëgg nga yóbbu fa am ndox mu mu jël bloc note bi bind ne ko am nga am nga ndox de lii wax si Cheikh Assoufé dégg mu nettali ko nee ah, ñu bari yàgg nañ ko wax mu ne ko waaw bii am nga ndox ak yi xewaat yëpp suñu Cheikh nettali nañu dem ba ndakaaru mu ndox ma dem ak waaye li ma li ma ci jublu foofu rek mooy gëm sëñ Fallou gi ba nga xam ne. yaakaarut dara ci nguurug àdduna kon ñun dañ cee war a roy bis nag bu dee am nit ñi xewloo yu neex yi naan naan yu sedd yi rek daal dem te jéemuñ cee jëlee dara day mel ne dafa niilut ñun kon nañ ci ñaan di ci jàng di ci jàngale itam suñ seexu naa bi ngay jàng léegi da wax ne si da wax lu bari boo ko dégloo te xam li mu wax nga xam ne sëñ Tuubaa mën ñaan moo tax dégg nga li sëñ Muntaxa wax ne mosuñoo gis ko dàq ñaan maanaam ku xam li muy wax te dégg ko déglu ni muy ñaane da ngay xam ne kii moo yéene jaam ñi jàmm mu Cheikh Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu ah waxtaan wi moom jarul guddal daanaka boo xoolee mun taxa ni mu taxawee fan yii ak li mu wax murid yi daanaka mën nañ cee nekk di waxtaan ba lay yóbbi diini wax ji day mel ne daa am lu muy tontu mooy sëñ Tuubaa suñu xel dal na digganteem ak boromam wax ju kawe la suñu xel dal na diggante sëñ tubaa ak boromam te ñun suñu digganteeg suñu boromam sëñ bi daanuñu ci loolu manteex la li ñuy wax manteex boo jàngee logique loolu mooy moom lañ moom la ñuy wax manteex loolu nag ku ne sañ na ko. sëñ Touba suñ diggante digganteem ak boromam suñ xel dal na ci waaye itam ñun suñ digganteeg suñ borom suñ tubaa doy nañu ci booba la wax di farank la comme nag dañoo àgg ci tëj bis bi fàttali leen ki nga xam ne moo moo waral bis bi mooy Cheikh Moustapha Fadilou dañuy yóbbante ndaw ñi fu ñu jëm ci àdduna nañ nekk ci ñaar yi foo waay dem yóbbaale ko coow li bari na lool àdduna bi jaxasoo na gis nga lii ngeen gis ci ay pandémie ñu di ko wax jaa jaaixa ci arab muy pandémie mooy am mbas yooyu mel noonu yëpp man li ma jàpp mooy nit ñi tooñ guñ tooñ yàlla gu baree bare bari ci àdduna bi doon yow mi may wax sax man nga caa bañ bokk waaye dañ daa am ñuy tooñ yóbbaale la wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa xaw mu luut bañ tollee fii ay borom ñaari tur yooyu ñuy wax suñu borom deen alak moo tax man lii alkande laa ko jàppe moo tax sëñ bi tuub googu mu woote ak ñaan gi gis ngeen ni mu demee kon fu waay mën dem na fa yóbbaale ñaar mooy liggéey ak jaamu yàlla te leen selal liggéey ak jaamu yàlla te leen selal selal jaamu yàlla nag mooy nga bañ caa ngistal bañ a bokk ca alladina hum an saatihim saahuun alladina hum yuraauuna wa yamnauna almaawun loolu moom la billah yàlla ñu ci yàlla musal sellal ab liggéey nag lu jar la ndax ndaw ñi dañoo toll foo xam ne nu ñu amee baax na tadu tadu noonu li ci doy waar nag mooy nit ñi nit ñi ñoo bëgg tut ku leen wax dëgg malheureusement wala boog buñ ko déggeet duñ ko jàpp nuux Seydina nuux alayhi salaam daa woote woote woote ba mujj mu jàmba jàmma jàkkaarloog yàlla mel na kuy jàmbat naan ko sama woote bii daa mujj daa mel daa sonn dal naan ko wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu asaabiahum fi adanihim wastaxsaw thiyabahum wa asarru wastakbaru stikbara ne nit ñi daal damay wax a wax a ba sonn waaye du ma waxee fii lay jaar génn fii nee na ma mujj dugg ci biir kër yi kenn ku nekk ma wéet ak yow di la wax jaamul yàlla ndax yàlla jéggal la nga lànk summa inni daawtuhum jihaaran summa inni aalantu lahum bi kër yi jàllut dama mujj takki rajo di wax waaye kenn déggu nee na ma mujj di leen wax li leen yàlla defal ndax yàlla ndax ndax ñu mën maa dégg boog yursilu yursilu sama aleykum med wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara maa lakum laa tarjuuna lillaahi nee ñu a ceel foofu la nit ñi tollaat nii fi mu toll nii mooy pas-pas yi ci boppam moo yàqu nit ñi ci boppam ñoo nekk dut foo xam ne pas-pas mën naa nekk seen jëmm ji ma waral li am di am fi ne kenn mënut a war kenn wala booy war kenn sax bu yàggee mu ne la wax waxtu wi daa xat tey nag fu waay dem sëñ Tuubaa gi nga xam ne moom la nit ñi bëgg a dégg bokk ak sëñ Tuubaa gi am lépp ci nit ñi sëñ Tuubaa gi ñu bëgg a dégg nga xam ne ñoo tax ñu lay di naan la waxtu wi daa xat laalal ñu ci sëñ bi da ngay tiim xasida sëñ Tuubaa di ko jàngale di wax li sëriñ bi wax ñu déy leen ne laalal ñu ci sëñ bi waa jan sëñ Tuubaa sëñ tubaa ji ñu bëgg a dégg mooy ji woyofal jàmm yàlla di woyofal julli di ko yombal ñëpp yuuxu di daanu say poos fees dell mm-hmm. kon maa ngi lancé message ñii wax mm-hmm. rik waaye nañ xool seen digganteek yàlla mm-hmm. damay jàkkaarloo ñoom wax ne fu sëñ Xaadim fu ngeen mën dem yóbbu leen falaw ñii wax di réeral nit ñi te nit ñi nekk ay innocent bëgg sëñ tubaa képp mu leen mu moo waral li ci ñoom waaye nit ñi itam bëgg nañoo bëgg nañoo dégg dëgg de ku leen wax dëgg ñu dégg ko nit ñooñu ñii jàkkaarloo yoom ñii jàkkaarloo ñoom di wax ñii jàkkaarloo ñoom di wax nañ xool yàlla ci li ñuy wax téeméeri gaay yu màggat yi kat suñ borom ak gën a doon fayu yàlla ak gën a doon ku topp téeméeri ñàq yeeg mille francs yeeg yi mun laa yor ba déwén ren ba déwén bu la taxalee bu la la taxee nag jaay sa ngor jaay sa lislaam jaay sa taalibe di wax loo xam ne leer na dara du ci dëgg ak di ko sosal sëriñ bi loolu la àdduna ko nit ñi nag léegi nu leen neex amee li ñu wax léegi ne nañuy jaamu yàlla te di ko sellal di liggéey te di ko sellal mooy foo mën di liggéeye liggéeyee na ñun ndaw ñi foo mën di liggéeyee lépp lu ca laal ci lu suñ borom santut wala gërëmu ko bul jàpp ne mën na laa may dara soo ca amee dara mën naa nuur luy doon dara waaye tàkk-tàkkul mboob lay doon ndaw ñi itam nañ yóbbaale ñaar ndaw lu ko respecté danga nekk sécurité ku ko respecté wu ne mi ngi mel na nga dugg ci amut ku oto boo xam ne amut ay frein amuti làmp ka koy dawal amut permis bis bis boobu la njëkk laal volant loolu mooy lan mooy lekk àqi jàmbur ak njaaroo lekk àqi jàmbur ak njaaroo ndaw lu koy def nanga nga xam ne lu mel noonu maanaam moment bu ne rek mën ngaa xalangu ci autoroute bi du xuppaate nag du xuppaate ay ay ay dénkaane la ak déey wax nit ki li nga ko yéene fu waay damit nanga ko fa yóbbale teñ te teñ doyloo suñ tubaa nag ñun suñ tubaa daa mat sëkk ñun fu ne dem nañ fa ñiy wër di wax buñ leen déglu nañ moytu audio yi ak vidéo yi nga xam ne eh, internet am penc la penc moo xam ne nag heure boo xëyee gis fi xam-xam bu bees bu la gane si boo xam ne xamoo fu mu jugee ab audio ab vidéo am nangam nangam tax na pas-pas yëpp yàqu loolu li ñuy wax ay ay moyen moyen la yoo xam ne ñiy xeex lislaam ñoo jaarale foofu seen mbir waaye nañ jàpp suñ tuba suñ suñ tuba mii te xam ne kenn amu ko suñ fàll waxoon na ko de li ñu am euh, ñi ñuy wax di ñuy sànni ay xeer day loolu la ñuy wax mu yi loolu yëpp na leer nit ñoo xam ne at mu jot ñi ngi sonn ci ay nit leen yóbbu mag ëpp la ay jumaa ci réew mi di def ngir yàlla foo toll ña ngay togg di joxe di joxe ay ñam di sonn ci nit ñi di leen yóbbu mag nga bëgg leen def ay yéefar yow moom yaay ab yéefar ndax yonent bi sallallahu alayhi wa moo wax ne képp ku wax sa morom ab yéefar nga tëru dëgg kéefar gi ci yéen ñaar moom kenn am na la ngay wax bu dee dëgg kéefar gi am na waaye ba amul nag yow mi ko wedd loo yaay ab kon ñu bari jaar nañu yoonu murid nekk ay yéefar ndax tooñ guñu leen tooñ sëñ Tuubaa daal alkitaabu wa sunna ci la nekk waa ngi nit ñu yiw lañ bala maa dee ñu naan dañoo jàppe sariñ bi yàlla ak naafeq la kenn jàppee suñ Touba yàlla waaye nag sañ nañu ñaan ci barkeem sañ nañu ci dara yam ndax suñu borom moo wax ne inna allaha ala kulli shay'in qadir shay'un nag amul limite kulli shay'in qadir amul limite nakira la kon jàpp leen seen suñ Touba mii da xam ne amul fenn de lii nit ñi bañ. Touba daa def nii Touba daa def naa Touba daa am doole Touba am na lii warta am lii réew moo dem réew moo dem ci àdduna bi daa wax de kuy dox nag laa wax da nga fa fekk lu ñu fay bàyyi loolu nag mooy Touba Sénégal boo demee Rome Vatican dafa indépendant am ay ambassadeur boppam nga dem faneen ak faneen fekk fa ay famille yoo xam ne dañ leen fay bàyyi te mën nañoo ne ba ñu nekk sax ay julit kii nag daal liggéeyal suñu borom. tey nag li li ma koy tëjee nag mooy Touba moo njëkk am Sénégal indépendance xulóowu ma nag koo xam ne bi ñu jox sa titre foncier ne la fii yaa ko moom li ñuy tuddee indépendance 1960 amagut kon kay yaa njëkk Sénégal kon nag nañu jox liñ moom te li sëñ li sëñ nañ ñu bàyyeeg li sëñ Abdou Samad wax nañ ñu bàyyeeg suñuy murit fii kenn bokkalewu fi yàlla xam nañ kan mooy yàlla suñ Touba dañu koo jàngal ba mu fees dell. qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu wuuteeg nit wuuteeg man nag ci pas-pas wuuteeg man ci dégg-dégg tax nga bëgg maa def ab yéefar xam nga fu ñuy nekk yow a le chien aboie et la caravane passe booy baw bawal rek ñun ñu ngi jàll dem wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu wa rahmatulahi taala wa barakatu ok jërëjëf Cheikh Abdoul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamadul basiir moom Cheikh Mohamadul Modou Moustapha Fallilou moom Cheikh moodu Fadal ci kàddu yu am solo yi ak njàngat bu am solo bi mu nga xamante ne ni tamit jàngatee nañ ko lenn ci ay kàddoom muy taxaw seetlu yu bari yum ci def muy ci diggante la ko tàmbalee ci Serigne Modou waaye ñëwal ñu tamit ci Cheikh Mouhamadul Mountakha ak taxawaay bi mu am ci yoonu murit waaye ñëwul ñu ci nit ñu war a jàngalee dëgg-dëgg Seexanaa si Ahmadou Bamba euh, bokkut ak euh, ni mu ko comparé nii bokkut ak ni ko gars yi di defee nga xam ne moom indi na ci ay leeral maanaam firnde yi mu indi mooy eh, gars yi boo leen dee jàppee seen téeméer yu nga xamante ni boo xam nañ ko ba mu sonn euh, bu dee loolu rek moo tax ngay wax ci sëriñ bi doo leen di wax dëgg dëgg dëgg sëriñ bi kon moom li mu ñu indi tey mooy dëgg dëgg sëriñ bi waaye it beneen tolluwaay bi nga xamante ni jàngat nañ ko ci li mu wax mooy moom yëg-yëgam la wax mooy ci diggante taalibe yi ni ñu war a jàppee sëriñ bi itam ngir moom foofa la nekk nit ki nag bu fekkee ne moom dafa lay dafa lay dafa lay digal da digal ca la mu nekk waaye nit bu la digalee di la digal loo xamante ni nekku ca bu boobaa dalay lay jay waaye digalu la moom nag xëy na fi mu nekk la waxee ci sëriñ bi waaye tolluwaayam la wax euh, message yooyu la doon jàllale li nga xamante ni ñooy ndaw ni te message yi nit ñi daanañ ko xaar ci moom ci cérémonie yi wala ci conférence sedi euh, mu nekk message boo xamante ni jaar na fam daan jaar am na ci yeneen yoo xamante ni defoon na ko fi te ba léegi day dox ci réseaux sociaux yi nit ñi di ci bàyyi xel di ci jëre ay njàngat kon sëriñ bi ñi ngi rafetlu yi bu a euh, nga xamante ni seex nga ak ñoom jotaay bi seex Modou Fadal euh, sëriñ Moustapha sëriñ Modou ak mbooleem soxna yi nga xamante ni rek ñu ngi fi soxna Maawa ba ci sunu yaay yi nga xamante ni it ñoom it ñu am solo lañ ci liggéey ko seex sëriñ Basiru gi muy suñu yaay soxna Waalo soxna Maawa soxna Mbenn soxna Diop di ñoo xamante ni it ñooy ay bayfaalu sëriñ bi eh, di yàgg a sonn ci kër gi ñoom it ñu ngi leen di siyaara bu baax a baax ci bis bi waaye di leen ñaanal it suñu borom may ñu ñu fekk ko at yu baree baree bari eh, ba bii di ñëw dàqal ñu ren incha allahu taala bu ko defee eh, ñu daal di tëj rek ba fii ngoon incha allah waxtaan wi it li ci des dinañ ko gën a génne incha allah ak sëriñ bi mu fekkee ni it ak yaatu am na it dina dinañ ci mën a continuer incha allah ci ngoon gi wa axiru dawxaana anil hamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullah tàllal leen yéen a ngi seetaan seen télévision Touba Vision kon nag abonné leen te activé cloche bi ngir mën jot suñuy video saa yu ne Touba Vision la télévision qui suit l'enseignement de Khadimou Rassoul